pour le respect du calendrier xam nga lan moo ma jaaxal. waaw. Euh, ñoom collectif bi ñoom ñoo sàkku gisee ak Macky Sall. waaw Macky ne leen kaay leen. Mhm. Euh, Macky Sall waxul report élection. Amadou Ba nee na le 25 dinañu sëgg bëre. amul ku nekk ci am amul ku nekk waa peut-être. non loolu mooy am sax. <laughs> amul ku ah, xam nga ni mënul gagner amul ku nekk ci entourage Macky ku tekki dara. ku taxaw wax waxu report wala koo xam ne mën na engagement Macky Sall. c'est des opposants qui parlent de report qui accusent le pouvoir de vouloir le, le le le le report c'est Aminata Touré qui euh, on convoque une réunion à 21h on convoque non une réunion à 21 et Aminata Touré mu ne euh, na ñu respecter calendrier républicain bi moom bokkul ci mbir moomu laalew si euh, report mënul am en fait c'est l'opposition ki sa qui sa soulève pour dire euh, du ñu nangu report report mënul am. Euh, je ne comprends pas finalement yow nee nga euh, waa boor bee ñoom bëgguñu report. bëgguñu report opposition nee na bëggul report. bon kay na jàmm ne ñooy nañ xaar le 25 février ñu dem daagaan baatu askan bi ku ci nekk lu la yàlla may nga jël parce que ñoom xam nañ ni c'en est fini pour eux régime bi le système la mais c'est fini mais xam nga li ci gën a neex damay discuter à un moment je passe mon temps discuter avec les politiques. waaw de tous mhm. damay discuter ak ñenn may xëccoo ñu ne ma leen y' a pas de report le pouvoir ne cherche pas le report après les gars ma. xanaa y' a pas de le 25. non y voilà après les gens me disent ñu ne ma xanaa xamoo waa Pastef. Mhm. dañ cee dañoo koo ñemewul assumer. mais ñoo gën a bëgg report bi. mais ñooñu. <laughs> xanaa xaw ma ku la wax loolu mais kooku xamul Pastef. oui ñu ne ma waa Pastef. ñoo gën a bëgg euh, report bi parce que un parewuñu. deux bu débat report amee ñoom dinañ ci profito ñu régler situation Ousmane Sonko ñu régle situation. Euh, Bassirou mais mais xaw ma ku la wax. loolu non mais xaw ma ku la wax loolu mais xamul Pastef. Pastef lépp luy wàcc constitution bi xam nañ ne report dafa euh, juyoo ak li constitution bi wax te ñun report pour lan. Eh, ñun vous n'êtes pas prêt. non loin de là Pastef rekk pare. Pastef rekk pare. opposition bi kenn ma ne Pastef rekk pare parce que tey jii nii la majorité politique la majorité sociologique dans ce pays ci ñun la nekk. ci loxo Pastef la nekk mënoo wax politique Sénégal actuellement sans parler de Pastef la majorité ci Pastef la nekk loolu il va de soi donc Pastef amuñu benn intérêt pour qu'il y ait report laajuñu report fu ñuy waxtaane report demuñu fa duñ ko sax xalaat parce que mënul nekk ñun jàpp nañ ne mënul nekk c'est impossible fan la ko Macky Sall di jaar Macky Sall amul prérogative yooyu wax naa la léegi ne la la constitution est très claire benn condition rek moo mën am pour rapport am mooy le décès d'un candidat mais mais Boubacar Camara mi ko doon théoriser. waaw ah. moom euh, tegoon na en place une organisation euh, une transition euh, il avait réfléchi sur les conditions d'une transition bu ñu bu ñu reporté et tu sais quand Boubacar Camara a quand Boubacar Camara a théorisé le le le report beaucoup dans le beaucoup de dans le landerneau politique dañ doon wax ne c'est Ousmane Sonko moo bëgg report <laughs> mais may mu a yow xanaa li ma la wax leewul. ah lay wax rek. non non non non non li ma la wax dafa clair. Pastef xalaatul rapport soxlawuñu rapport parce qu'on est sûr de nos forces en toute humilité actuellement Pastef est majoritaire dans ce pays il faut que les gens l'acceptent c'est la réalité Pastef amul lu muy ragal pour dem élection xoolal la progression de Pastef depuis 2019 fi mu ne nii on est majoritaire rapport ñun on perd bu ñu demee rapport te soxlawuñu ko parce que nous ne sommes pas dans des combines duñu combine la constitution sénégalaise est très claire bu ñu demee rapport wax naa la léegi ne violé nañ euh, l' article 27 et l' article 103 de la constitution parce que la durée du mandat présidentiel loolu clause d' éternité la kenn mënu ko sax changer dafa intangible ba pare ñu bëgg ne report report du am mënul am ñun on a vraiment on n'a pas du tout intérêt pour qu'il y ait report wuñ xalaatuñ ko waxtaanewuñ ko ñun ñu ngi ci